neuvième combat de la soirée du bi mi ngi dox si diggante ak ak caatu Ndakaaru ñu ngi noonu Hamza caatu Ndakaaru ngi noonu caatu Ndakaaru moo ñu wan ginnaaw Hamza lañ jàkkaar lool bi mooy combat spécial bi arbitre baa ngi leen di wax ndax pare ngeen aca mi noonu aca arbi sifflé na combat bi diggante Xamza Thiam ña ngay xeex doon waaw waaw waaw waaw luy xew luy xew luy xew lan moo xew lan moo xew lu xew lu xew vite fait c'est bien normal VAR waaw VAR c'est normal VAR c'est normal VAR ndax man li ma gis trois appui moo am. nee nañu xaaral bi c'est le maître du terrain. c'est le maître du terrain. waaw nañu ko déglu nañu ko xaar waaw. acca mi ngi noonu mi ngi noonu. waaw bëriwaat wala waaw waaw daan na ko Caatu Ndakaaru daan na ko daan na ko Caatu Ndakaaru daan na Xamza. daan na ko par quatre appuis waaw waaw mi ngi noonu.